da ko waxee xol c'est parce que le cœur qui parle waaw mu ngi noonu parce que engagement bi mu jël la waaw xeex naa fukki at pour mu kii ci te bàyyiwuma ba léegi bàyyiwuma mm-hmm. dinaa xeex pour mu toog ci pour mu toog ci xam nga loolu kenn mësu ko gis loolu mooy dimension xar loolu bu dee da ngay xaritoog nit pour ay intérêt àddina doo mën a dégg loolu mm-hmm. dégg nga ñaata nit ñoo euh, du ñoom ay ñoom ñoom Omar Gueye ak ñoom Ablaye Wade ak ñoom sa Seck tuddante wuñu fii ay doom mm-hmm. ah mm. fan lañ mujj tey mu ngi mel ni xaaj ak muus ku jël kii di wax sa moroom ngay xas mm. xam nga àddina bu bu bu baaxoon Idrissa Seck dina toog di xas Ablaye Wade ah, Ablaye Wade dina toog di xas Idrissa Seck c'est parce que àndandoo bi moo doonul woon àndandoo dëgg àndandoo Machiavel la ah, dégg nga ku man sa moroom lekk loolu mooy dëgg mm-hmm. ñun suñu xel dafa gën a dal El Bachir yàlla na ko yàlla gën a sàmm wax ji dafa dalal xelu ñëpp gis nga moo taxit bi mu waxee ba pare gars yi dañoo jëfur parce que ñoom jàppoon nañ ne benn bunt rek lañ amoon mooy fexe ba féewale al Bachir ak Moubarak dox seen diggante dégg nga moom laa doon wax di xas el ba di xas président Ousmane <laughs> di tagg Bachir. mais yow dafa mel ni tontu bi sax yàgg nga ci wax de. oui ne Bachir fi mu toog li koy metti dëgg dëgg boo ko laajee. waaw mooy song gi ñuy song Ousmane. non loolu loolu ku ñi ko xam ñëpp loolu la ñu wax. dégg nga ñi ko xam ñëpp loolu la ñu wax man maa dégg professeur euh, Cheikh Omar Diagne. Mm-hmm. moom moog moog moog El Bachir ñoo dëkkoon benn nekk ci kaso bi. Mm-hmm. Cheikh Omar ne Bachir bu ñu woowoon Sonko mu war a dem tribunal walla bésam yu métti yooyu noonu nee na Bachir suba ba ngoon du wax du lekk hmm? ndax naqar mu ne tellement daf ko bëgg bëgg boo xam ne dafa jéggi dayoo. léegi xam nga man li ma neex cest à man dama bëgg nit ñu sincère ci bëggeel xam nga Bachir nee na usman daf ko bëgg ba mbëggeel gi ëpp déggoo loolu. Mm-hmm. léegi ñële na Bachir daa bëgg Sonko ba mbëggeel gi ëpp mais loolu mooy àddina. ñaar jooju te kenn mënu leen tàqale. mu ngi noonu kenn du sotti. donc tey loolu royukaay la nit ñi war nañ roy ci loolu. Mm-hmm. El Bachir dafa jàngale nit ñi lan mooy valeur suñu jikko yu tedd yi suñu ngor. jë dégg nga sàmm kóllëre. yooyu yëpp tey daf ko delloo siwaat waat bon kantaan ñi nga xam ne dañuy wax nag di wax damay wax ne am na fi ay opposants yoo xam ne bu ñu fekkoon dañoo xëy ñu ne conférence de presse éliminé nañ ko amatul ci réew mi ñoom seen parti fay na wallaahi. <laughs> wallaahi te dañuy supposé rek ñu ne léegi léegi. kuy def sa activité politique damal defee ko neneen mais conférence de presse conférence moom amatul. mais kon bokkum lu muy defati jeexal na. ah bokkum da jàpp ne moom rek moo nekk ci parti. non xam nga moom de <laughs> c'est-à-dire dama ni ñoom conférence de presse rek la am. parce que conférence de presse aussi dafa yomb ah dajale journaliste yëpp ñëw dégg nga ñu nga wax ñu ñu tasaareel la ko. loolu loolu loolu la ñuy def di moo tax dama ne ko nar naa sonn de dina organiser conférence de presse yu bëree bëree bare bëri parce que moom amul beneen uti bu muy opposé lu dul conférence de presse. dégg nga bon beneen bi aussi man damay gërëm bu baax a baax a baax euh, patriotes yi parce que Bécaye mhm. xam nga li neex ci ci yëf yi mooy ñoom bu ñu indee seen i tappale ak seen i njaxas ak seen i waxi naafeq ak waxi jaxase balaa mat benn minute booy décorti ko wan leen ne li ngeen wax du dëgg dajj ko teg ko fële te vraiment bu ma koy xool dajj bi du ma xool ay mag mais ay xale laay gis ñoo leen di démontrer wan leen ne li ngeen wax du dëgg dégg nga tey fi ñu toll ni Bougane euh, ndajeem na moom moom mu defoon tey boo xoolee niñ ñu koy décortiquer di ko wan ne ko lii du xam-xam li nga wax nangam dama ne kii vraiment war na yokk àlluwaam parce que politique boo koy def dangay ngay jàng. protocole ba soo gi am na de imam eh, Cheikh Oumar Anne ah, it dëggal na ko dëmb ci bi mu demee ci MNF ne protocole Cap Manuel moom am na. waaye mais léegi après léegi bu bu amee léegi lan la. yow def nga ne Ousmane Sonko dina dem di gisee ak euh, Macky ànd ak El Bachir te waxtaan jiituwut loolu loolu ku la ko wax di nga ko gëm mm. ay waxtaan moo jiitu loolu yéen dégg ngeen fi euh, Atepa. doon dox ay tànk. yooyu ay ay ay waxtaan la. Ousmane dëggal na ko. na ko léegi loolu bu débat loolu mun xamee lan lañ bëgg accords yi léegi accord et après accords yi yow génn réew mi dem grandeur Ousmane Sonko. mu ngi nekk ci dëgg-dëgg bi Macky Sall bëggee dàq élection yi pour mu bokk yow boo ne accord am na rek yaa ngi tagg sunk c'est parce que mu ngi doon suufeel boppam wala wàccee boppam accord yooyu ñuy wax am na mu dàq élection yi mu ne Macky dàqal élection yi pour ma bokk su boobaa ñu xeeb mais accord yoo xam ne dañoo bëgg a dàq yi pour nga bokk nga ne leen mukk tànn naa ba pare te man su ma xasee wax waaw rek waaw la ñoom buñ ne accord am na ñu ngi tagg waa ji te yëguñu ko mais sëñ bi loolu kenn mësu ko def Macky Sall ne ko da ngay bokk man maa juumoon baal ma dañ maa naxoon léegi élection yi da ngay bokk. te su bokkoon day gañe. da bokk tey waaw yow. réew mi waaw mu bir ko ne bu bokkee day. nag nangu ne dañ ma nax liñ ma waxoon ci yow dara du ci dëgg dégg nga yaa nekk ci dëgg réew mi yow la ko yàlla jox bàyyil ma pousse élection yi nga bokk. ku tedd ki ne ko tànn naa ba pare wax naa ba pare te kama tànn mooy man man maay moom ca gor ca wax ca du ma wax mukk di weddiwaat sama bopp saa yu ngeen di wax ay protocole rek yéen a ngi tagg al almubaarak te yëgu leen ko ñii nañu réglé xam nga accord ban moo bon accord yoo xam ne ay deal la deal boo xamante ne ni dañuy ñàkk alalu réew mi deal boo xamante ne ni dañuy ñàkk bakkan yi faatu lu dul loolu guerre lu mu rëy rëy première guerre mondiale ak deuxième guerre mondiale ñaataa ci dee topp. Hmm, bëri na ay millions nga soixante dix mille personnes millions doomu aadama faatu nañ ci. soixante dix millions ñoo dee ci ñaari guerre yi lu ko ëpp sax dee na. waxuma yeneen dégâts matériels yi mais bakkan yi rek soixante dix millions juróom ñaar fukki million ñoo dee ci ñaari guerre yi quatorze dix-huit ak trente neuf quarante cinq fan la mujjee. table. waaw ci table nag moom kat xam lu ñu tuddee ay ay ay protocole mooy toog waxtaan. <laughs> waaw yonent yàlla xam Muhammad xeex gi mu xeex ak Quraysh fu mu mujjee. mooy Xudaybiya ñu signé accord. dégg nga loolu mooy àddina noonu lay doxee mais fan lay bonee nag mooy accord boo xam ne day gaañ sa réew day yàq sa koom komu réew moo tax ñu seen wax yi waxi ku daanu si sareet la vraiment hmm. man saa yu ma déggee ñu ne protocole ay xaw ma tur yooyu ñuy créé ak yooyu dama ne yéen a ngi tagg waa ji de. protocole de Cap Manuel. waaw ji ni ngi tagg waa ji de. mais waa na teeru Baye Sow la ko gars yi signé ko mën mais man de wax dëgg yàlla dafa am wax yoo xam ne sëñ toog euh, du waxu xam-xam te man lépp lu dul xam-xam rek mënuma ci nekk di commenter quoi wax dëgg yàlla. dafa am yoo xam ne waxi xale la daal xam nga dafa dafa am yoo xam dafa xaleele. dégg nga di ay affaire yu jaay gentleman dégg nga jaay éloquence dégg nga di bonde fii nii dégg nga di sol ay mbubu Cheikh Anta Diop. te kenn mësul gis nga sol ko. dégg nga non non xam nga. xam nga euh, nit ku nekk li ko yàlla may nañ ko ko may. Hmm. sonko sonko la keneen du sonko. gis nga Bachir al Bachir mii. Hmm. li tax àndam ak sonko am so am solo parce que ku nekk da ngaa doon li nga doon. moo tax dañuy wuutee xelaat ba pare di ànd. Hmm. mais yaa ngi dugg tey euh, yi sonko daan terme yi sonko daan wax moom la buggaan di wax. léegi bu waxee naan yéen politiciens yi xam nga politiciens yi politiciens yi ma ne ah kii kii kii mu ngi jël terme sonko yi de. <laughs> léegi ah léegi keroog ma gis ko mos waaye mais mooy waay yow kii di Machiavel nga naan lan Bougane li muy doxal yëpp Machiavel mais ah mu ngi koy dund de Bougane seen entrepreneur mu ngi koy dund de yow xam nga ne t-shirt Cheikh Anta Diop yi mu te ma ne ah ndeysaan mbaa du photo Maodo ba mu gis ca ba mu kii ba ak ak affaire Cheikh Anta Diop ak léegi comme Sonko day teg ay Thomas Sankara ak ay ay Maodo léegi muy toppatoo ay t-shirt dafa mën a toppandoo <laughs> loolu loolu nit ñi dañ lay xool di la lu baax dara nekk ci imam non da ngay nangu nit ki li ko yàlla def lu baax bépp terme boo xam ne Sonko wax na ko tey buggaan mu ngi cey jéem a jaaraat ay anti système kan moo fi indi anti système loolu Sonko ko moom kan moo fi indi ay Cheikh Anta Diop. ay ba tax na kenn amatul droit tudd anti ay ay ay ay Mamadou Mamadou Dia ñoom ñëpp loolu yëpp Sonko ko fi indi sa waay nañu na nañu nañu nañu nangu te xam ne lii la yàlla def am na loo xam ne boo koy def da ngay gën a xeeb sa bopp da gën a suufeel sa Pape nag. defal leen bi ci gën a neex. daal di jël RTS ñu waneel affaire bi. ma ne ko lii mooy tontu bu gaaw bi xam nga ne réew mi changé na waaw ñoom seen conférence de presse Pape Ali da koo jël teg ko RTS. Hmm. keroog dama ne ñii buñ doon tey la ñuy dee la ñuy dee ndax gàcc. <laughs> taxaw di xas régime bi dégg waaw non maanaam maanaam loolu moo leen di tontu wane leen ne ñii bokkuñu ak système yi fi daan nekk. yow fan nga mos gis fii ci histoire Sénégal RTS. un opposant di di ŋàññi eh, président bi ak premier ministre bi di leen tuumal ay complot RTS di ko teg mais topp dëgg ah, du ci Macky Sall de ah ak feneen it ak feneen <laughs> <laughs> waaw donc bokk ñii ñi daal sëñ. mais mbaa du nekk ci début bi rek njaxtal gi yenn saa yi si day gars cuubu de. mais nag directeur yow dama foogoon ne xam nga yow. Hmm. naan di tënk quoi dama foog ne ba léegi yow xamagoo al al mubaarak. maa ngi koy jéem a xam nag. non non ko mais il faut nga jël temps xool ko. mais Imaam koy jéem a. xam non non xamagoo ko de li ma yor fii ci ay livres yu ñu bind Ousmane Sonko. waaw su ma la ko wanoon nga ne ma yow. waaw mais il faut nga jàpp parce que parce que parce que gis nga man xam nga man euh, lan man ni ma gëmee Ousmane xam nga nan laa ko gëmee mooy lépp lu mu wax dina ko def waaw man Ousmane xanaa lu mu waxul mais lu génn ci làmmiñ